الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم mbokki jullit yi jaami yàlla yi ngi sant borom bi subhanahu wa taala li nga xam ni mooy borom bi ndéef yi di ko bàkk di ko kañ di ko màggal di ko tagg di seede ni mooy ki moom asamaan yi mooy ki moom suuf yi di seere ni mooy ki moom li ci diggante bi di seere ni mooy xaaliqu kulli shay'in lépp lu mën doon mooy ki ko bind mooy ki ko sàkk seere ni mooy borom kàttan bu matali ji moo féete kaw lépp di seere ni moom moom mboole seen lañ xam ak lañ xamul mbokki jullit yi ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu saxal nu ci ngëm saxal nu ci lislaam te tënku ñu ci alquran ak sunna ba këram ñu koy fekk di ko ñaan mu jéggal nu suñ mboolee bi ñaawteef yi nga xam ne xam nañ ko yi ñu xamul mbokki jullit yi di jullee ka ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi nga xam ni moom la yàlla tabaraka wa taala tànn muy yonent bi mujjee wàcc ci xeet wi di yonent bi ci gën di yonent bi ci gën a matale ay mbir di ki nga xam ni mbooleem li ko borom bi tabaraka wa taala santoon def na ko mbokki jullit yi ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu wàcce ay waane yu xéewal ci kaw yonantu boobu alayhi salaatu wa salaam mbokki saxaabaam ak waa këram gannaaw loolu mbokki jullit yi ñu ngi bàkk yàlla di ko kañ di seere ni moom rek mooy buur xutbab ay bii muy xutbab tabaski di dimanche dimanche gii nga xam ne mooy tabaski ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu nangul lu mbooleem liñ ciy mbokki jullit yi li li aju ci xutba tey gi mi ngi jëm ci tawxiid kennal borom wa taala ak wéetal xam ngeen ni suñ borom subhanahu wa taala bëgg na lool koy tudd santaane na itamit nag ñu di ko tudd ba mu digle ko ni wadkurullaha fi ayaamin maadudaat da ngeen di tudd wa taala li nga xam ne mooy borom ci fan yi nga xam ne fan yu limu baqara mbokki jullit yi ci suratu zaariyaat borom bi tabaraka wa taala mi ngi xamal ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liyaabuduun nit ak jinne day borom bi jox nañu xibaar ni ñu li tax mu bind ñu mooy ñu jaamu bind ñu lu dul ñu jaamu ko lépp loo xam ni doomu aadama mi koy am fii ci suuf mu nekk ay yëngu coom na xam ni léppi loola ak jaamu la war a moo xam lu mu mën doon nag ndax borom bi nee na wa maa xalaqatul jinna wal insa illa li yaabudun nit ak jinne daal li wóor te wér nañ xam ne li tax yàlla bind ñu mooy ñu jaamu ko jaamu yàlla gi nag suñ lépp dund la war a doon wala yem rek ci jàpp julli déedéet wax jaam jëf jaam jëflante gaam mën a doon ci sa dund jaamu yàlla tabaraka wa taala la war a doon borom bi tabaraka wa taala nee na maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutaimun inna allaha huwa arrasaaqu dul quwati lmatin borom bi tabaraka wa taala nee na aajo woowul ci ñun wërsëg aajo woowul ci ñun wërsëg wala ñu di ko jox lum lekk ndax borom bi tabaraka wa taala lekkut naanut soxlawul wërsëg ndax moom mooy borom wërsëg moo tax mu tëje laaya gi inna allah huwa arrasaaq yàlla tabaraka wa taala ci boppam mooy borom wërsëg mbokki julli di jaam yàlla yi lii day buñ ko déggee dañuy xam ni ab pacte la bi maanaa luñ mën a teg ci suñ kanam loo xam ne danañu xamal ne yàlla tabaraka wa taala ci lii la yónni woon yonent yi alayhimu salaam ak anbiyaaw yi li tax ngir ñu woo nit ñi jëmale leen ci yàlla subhanahu wa taala jëmale leen ci ñu jaamu yàlla tabaraka wa taala moom dong nag moom dong nag xajjaleen leen leneen ak lu dul loolu doomu aadama yi ñu ci ñoom ñuy jaamu keneen ku dul yàlla subhaanahu wa taala yàlla rek rek lañ war a jaamu te loola buñ ko xamee day dal di nekk balance boo xam ni ci lañ a taxaw ngir ñu am bëggug yàlla tabaraka wa taala xam ko xam bu mat ak it topp ko topp ku mat sëkk loolee mi ngi tax mi ngi taxawee ci kaw wéetal borom bi tabaraka wa taala ak nangul ko ko suñ borom tabaraka wa taala nee na waaqi wajhaka li diini xaniifa ñun ñëpp nañ àndandoo jublu borom bi tabaraka wa taala ni coowu jël suñuy suñuy jëmbu jébbal ko ñeel diine ji nag ba pare rek dal di nangoo wommatu ñepp benn doomu aadama ci ñun wala ngay jinde du dagan ci yow nga wan ginnaaw borom bi tabaraka wa taala di jébbal sa jëmbu leneen mbaa keneen yàlla rek rek rek moo yeyoo ñu jébbalul ko moom rek rek rek moo yeyoo ñu wommatul ko moom rek moo yeyoo ñu topp ko moom rek moo yeyoo ñu jaamu ko waaye teg ko ci diine ji di lislaam di sharia bi nga xam ne ci la wàcce woon ci ci moom la ko wàcce woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokki julli asamaan ak suuf amul kenn ku ko ku ko téye ku dul yàlla subhaanahu wa taala mbokki jullit yi suuf amul kenn ku fi ëpp maqaama ñu jël xàq yàlla di la ko jox loolu kenn amul maqaamaam kum mën a doon ci ñun nga di yonent def ngay nit ku baax la la war mooy wombatul yàlla subhaanahu wa taala jaamu ko moom mi nga mooy yàlla moom rek lañ war a jaamu ci dëgg mbokk ñu lii suñ borom tabaraka wa taala nee na di gën a bari ci nit ñi ñoom xamuñu lu tax mooy du ñu ci lislaam gi du ñu nangoo kennal yàlla tabaraka wa taala te teg ko ci xam-xam moo tax mu bari ci nit ñi tey di jàdd di dugg ci ak réer wan ginnaaw lislaam di doxe seen bànneexi bakkan ci mbir te duñu laaj لولا اللي كاي وراه موي نياك گستو سا ديده فا ولا ياس بلا كتاب تي ابي عباد الله من قبل لي دي توحيد من نمت مكه مكه مكه لا وايا نغنيل لا يتامن نك تو فور وايا تا موي دغ كو كاوي كيغا خامني دا نا مانا يوبو جامبي بو فكيه سم بختل لا تا بوبام تي يالله تبارك وتعالى التوحيد موي لب بيري سو فوندمان بي باخول دارا دو باخ امول بن تبخ بو خامني دانا تخاو تا بين كو ووتال فوندمان بو باخ الاسلام نك ليغا كي مانا ديف بروم تبارك وتعالى نانغول لاكو موي توحيد سو فكنتني جام بي امول توحيد تنكوول ci li nga xamni mo sos mbir yi te mooy nangul yàlla yàllam bi di ko wéetal xam ni moom képp lañ war a jaamu ci ak dëgg su jaam bi nanguwul loolee leneen lu mu def lu mu mën a doon loola du sax ndax xam ngeen ni safaanu tawxid mooy bokkaale te xam ngeen ni bokkaale borom bi tabaraka taala nim ñu ko jàngale ci alquran day day mabbu ay jëf mi ngi mel ni tabax boo tabax ba mu yegg nga jaarale fa am dara mabbu noonee la bokkaale di def ay jëf yu baax yàlla nu yàlla tabaraka wa taala musal ci loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ni man maata yushriku billahi shay'an daxala naar ñun ñëpp nañu am na doo xam ne ab xadis a ngi bu wér boo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam xibaar nañu ko képp ku bañ a dem sawara moytu ko mooy bokkaale mooy safaanu tawxid yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp ku faatu fekk da ngaa yóbbaale bokkaale te mooy wutal yàlla moroom ci wax ak jëf lu mu tuuti tuuti borom bi tabaaraka yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne kooku day tàbbi sawara yàlla na yàlla musal ci loolu waalam wa ayuha almuslimun an allaha tabaraka wa taala huwa alxaaliqu albaariu almusawir lahu al asmaau alxusna ñëpp nañu ànd maase xam ne yàlla tabaraka wa taala mooy alxaaliq mooy aji bindi gi mooy ki nga xam ni mooy soppax ndi mbir yi ñeel na ko ay tur yu rafet yoo xam ne ci lañ ko war a woo mbokki jullit yi borom bi tabaraka wa taala ni ñuy jàngal ci suuratu zumar mu ne boo lëggee yowmal qiyaam di nga gis ay nit ñoo xam ne dañoo weddi woon seen borom te mooy jaar ci yoonu bokkaale yàlla yàlla musal ci loolu borom de mu ne da ngay gis seen xarkar yooyu ñu ñuul kukku seen wàccuwaay doon sawaraw jahannam te ñooñee day la leen yóbbee loola mooy dañoo nekkoon ay nit ñoo xam ne dañ daan rëy rëylu ci kaw suuf daawuñ nangu ak dëgg suñ leen waxee dëggub yàlla gi duñ ko jël suñ leen waxee lépp lu dëppoog li yàlla bëgg du ko jël ñoom daal seen yitte mooy seen mbiri bopp seen mbiri bakkan seen mbiri bànneex doonte loolu safaanoo dëgg la ñoom ca loola la ñu nekk yàlla nu yàlla musal ci loolu waaye borom bi tabaraka wa taala mu ne way najjillaahu alladina ttaqaw bi mafaazatihim da ngeen xam ne suñ borom tabaraka wa taala mooy kii fegal ñi nga xam ne dañoo ragaloon yàlla jaaroon ci tawxiid ci lépp loo xam ne ab njàqare la borom bi mu ne laa yamassuhumu suu amul dara lu laal bisu ci li xam ni mooy mooy luy lore wala hum yaxzanuun te ñoom duñu jàq bu ëllëgee yàlla nu yàlla boole ci ñoom mbokk jullit yi borom bi mooy allahu xaaliqu kulli shay'in wa huwa ala borom bi tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne mooy yàlla xaaliqu kulli shay boo bind lépp lu mën a doon lépp rek loo xam ak loo xamul loo yëg ak loo yëg ak loo yëgul loo gis ak loo gisul xaaliqu kulli shay lépp lu mën a doon yàlla mooy ki ko bind waaye nag wa huwa ala kulli shay wakil lépp ci lépp ci lépp lu mën a doon yàlla tabaraka wa taala ma ngay ma ngay wakkil ci loolu wala boog lépp lu mën a doon ci loolu ci yàlla lay wakkil bokki jullit yi ñeel na yàlla tabaraka wa taala mooy ki moom asamaan yi ak suuf yi kattan bi téye asamaan ak suuf mooy ki ko yor borom bi tabaraka wa taala dégg waxaat ni walladina kafaru bi ayatillahi ulaika humul xaasirun ñi weddi yàlla tabaraka wa taala wan ko ginnaaw nanguwuñ koo jaamu topp ay bànneex topp ay caaxaan di fetteerlu ci adduna bi di dund lu leen neex borom bi subhanahu wa taala mu ne gaa yooyu dañuy perte bu ëllëgee yomal qiyaam yàlla nu yàlla musal ci loolu bokki juri yi aaya yi nekk ci suratu zumar suñ ko xoolee bu baax danañ xam ni yàlla waxee na ci waxin woo xam yowmal qiyaam leer na nañ ci suñuy bopp képp ku bëgg a bëgg dugg aljanna da nga xam aljanna ci loxol borom bi tabaraka taala képp koo xam ne nga lankal borom bi sàggane jaamu gam la sant su ëllëgee yowmal qiyaam bu la borom bi buggal kenn du ca man dara amul kenn ko am maqaamay man laa dimbali ca loola yàlla lu yàlla musal mbokk jullit yi jaamu yàlla yi dañ xam ni kàddu gii di laa ilaha illa mooy kàddu tawxid ci la lépp tabaxoo dañ xam ni mooy kàddu gi gën ci kàddu yi maa ngi dégg sama bopp ñu sax ci di leen ko dégg mooy li gën ci li ñuy wax mbokk jullit yi borom bi tabaraka wa taala mu ne wa qadaa rabbuka allaa taabudu illa iyyah borom bi atte ne ci ñun ab dogal boo xam ne mooy nañ ko jaamu moom képp te buñ ko boole dara loolu atte bu leer nañ la wa qadaa rabbuka allaa taabudu illa iyyah te jaamu yàlla moom képp moom kase buñ ko bokkaale ak dara lii rek doy na sëkk jullit ñi xam ne bokkaale gi tasaaroo wan ginnaaw téere borom bi la tabaaraka wa taala moo ko su fekkoon ñun ñëpp dañoo ànd maasal mooy ci li nga xam ne mooy li yàlla tabaaraka wa taala santaane te jaamu ko jaamu gu wér sax ci alquraanam ji di ko gëstu sax ci sunna yonent bi alayhi salaatu wa di ko gëstu da fexe topp ndigal yi ci suñu kem kattan fexe bàyyi tere yi ci suñu kem kattan kon jafe-jafe yi ñu tàbbi day ci wàllu bokkaale jafe-jafe yi ñu tàbbi tey ci wàllu teqalikoo jafe-jafe yi ñu tàbbi tey ci wàllu réer <clears throat> yooyu yëpp kon duñ ca tàbbi li waral jafe-jafe yeeg réer gi ak bokkaale bu bari gi ci réew mi loolu ñàkk sax ci téere borom bi la tabaaraka wa taala mbokk jullit jaabi yàlla yi ñu ngi suñ bopp ragal yàlla di leen ko dégg di ñaan yàlla mu yombalal nu ko di ñaan yàlla mu bëgg nu di ñaan yàlla mu nangul nu suñuy suñuy jëf lépp bi jëf yàlla tabaaraka wa taala nangul ñu ko la ca baax mu gardeel ñu ko te fulal ñu ko la nga xam ne moo ca moo ca nekk ay njuumteeg yi ñaawteef mu jéggal ñu ko te soppil ñu ay tuyaaba mbokki jullit yi yàlla yàlla tabaaraka wa taala sàmm sàmm njaboot gi allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa'a wa arina albaatila baatilan warzuqna ijtinaabahu allahumma ahdina wahdi bina wahdi awlaadina وفي أولاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين برحمتك يا تواب يا كريم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتنا وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر لي ولوالدي